dal leen ak jàmm internet yi ñi nga xam ne rek yéen a ngi ñuy teewlu jamono bi ñu toll nii nag mën nañ Pire Bourissato def rek li nga xam ne mooy seen i activité gannaaw nag ba ñu li nga xam ne moom mooy élection yi ñoom nag boobu ba tey mën nañ teggiwuñ seen tànk benn yoon nataal bi ni mel di firndeel kenekat ña ngay jaamarloog ñi nga xam di takk der yi nekkat avance amul arrière donte le nag la république dafa daal di jaay doole ñi nga xam ne rek ñoom ñoo citoyen sénégalais yi nekkata lam bëgg nekk lu nga xam ne rek mën nañu askanu sunu gaal ñu si baree baree bari d'accorduñ si ak moom wante kat moom mu daal di jël dogal nekkata dina maintenir li nga xam ne rek moom mooy ay décision te nag xalaatu see dellu gannaaw mbir mi ni mel nag tax na mën nañu jamono bii ñu toll nii këru liggéeyukaay yu si baree bari daal di jote yëngatu nekkat ñu bari fi mu toll nii la ñuy waaj du lenn rek li nga xam seeni naqar wane ko teg ko ci kaw taabal ji ba kii di président de république daal di deltu gannaaw ci mbir yi nga xam ne rek jëloon na ko te mbir yi ni di ay dogal yoo xam ne rek mën nañ ñu baree baree bari d'accord ñu si te ñàkk see d'accord tax nag ñu koy wane di ko fësal saa su nekk fu ñu mënti nekk rek mbir mi jamono bi ñu toll nii mën nañ Sénégalais yu baree bari ñu ngi koy dund ànd ak li nga xam ne rek moom mooy naqarlu ak métti goo xam ne gu fës a fës la gumat sëkk jamono bi ñu toll nii jot a fësal jamono bi ñu toll nii moom mooy seen naqar nekkat kii di président de la république dafa war a daal di respecté ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi